Euh, di expliquer aussi projet bi première femme bi euh, kii moo ko financé euh, Union Europe ya Union Europe ñoom ñoo financé ñun ak waa Bulgarie ñu def tournée Europe deuxième projet bi kii moo waa Hongrie kii moo ko fi UNESCO UNESCO moo def ñoo financé Hongrie ak ak ak Lions of Africa pour ñu def tournée Europe bon beneen projet bi euh, Tal India ak Lions of Africa seen directeur bi moom moo tudd Mahes moom moo def financement bi moo ko sama jabar ñoom ñaar ñoo def financement bi beneen bi ci topp mooy euh, Duwaat moom mooy fa beneen inde bi wax kooku par ñoom Paris lañ fa lañ basé wu ñoom dañuy ñëw Sénégal mais ñun après ñu war a dem France ak ñoom encore boobu aussi gouvernement norvége ñoo jox sama jabar xaalis pour mu def mu def tournée boobu donc war nañ def war nañ def ñaari yoon bi ci topp nag mooy man bi ma état norvégien jëfee subvention boo xam ne ci sama wàllu liggéey personnel la quoi donc ed bi mën naa ne chaque année dañuy tànn les dix meilleurs artistes foofu en Norvège euh, jox ko ci dix personnes xëy na aussi tamit euh, li tax ñu jox la ko loolu man je suis mal placé pour wax ko parce que xam nga nit moom mënoo mënoo wax quoi comprendre dafa am fooy a yem rek quoi du ma ne les mais daal presque mën naa ne 2 millions artistes ñëpp koy xaar mais état bi moom mooy xool te kenn du leen yónnee leen ñoom ñooy def seen investigation xam nga ñooy ñooy xool ba tànn 10 artistes daal di leen jox xaalis boobu ba pare nag ubbil leen lépp luy bunt ci dëkk bi quoi. mu nekk loo xam ne moo raw sax xaalis parce que du xaalis mais nit xam nga trophée nga ñëw ci dëkk jàmbur nga fexe yow nga bokk ci ñu 10 personnes yooyu te waxoo la demandé wa defoo dara subventionné la ba pare nag ne la lépp loo xam ne nii at bi képp képp lépp loo bëgg a pare nañ pour ba xam nga. mënu ma ko sax expliquer mais après dina dinaa ko def ci dinaa ko jox presque bi ñu xam lan la quoi parce que boo ci nekkee di x day dem ba indi affaire arrogance donc euh, loolu moo war a euh, conférence de presse bi. troupe yi ngeen gis fii ñaari européen lañ ñaar ñu ay Inde lañu benn benn kenn ki moom France la nekk quoi parce que ay euh, ay français lañu ay Inde yu nekk France yoo xam ne nii ñoom it dañuy tourner ak ñun. donc loolu moo waral conférence de presse bi euh, pour ñëw wax sama waa dëkk ne lii état norvégien jox nañ ma ko pour ma dugg ko ci culture bi pour les artistes sénégalais mënuma ko nëbb parce que sinon day nduru corruption xaalis boobu du sama xaalis mais dañ ko jox pour ma aider ci les artistes pour man ko am ma tànn ñi nga xam ne mën naa liggéey ñoom pour ñu liggéey ci loolu donc ñëpp xaj nañ ci beneen bi ci topp mooy euh, euh, mooy euh, premier groupe bi mooy mooy Taal India ñoom ñaar ñoo def fusionné pour jaay culture bi ñoom ñaar ñaari sama jabar ak promoteur inde bi ñoom ñoo def financement bi pour jaay ko moo waral ñun suñu ñaari yoon inde yàlla def na nag produit bi européens yi promoteur yi gis nañ ko ba mi ngi nekk en cours pour ñu jaay ko man aussi dem naa fii dañ demoon Womex ñun at bu jot dañuy dem Womex Womex dafa mel ni foire de Dakar da ngay ñëw indi sa produit mais yàlla bi ma demee at bii moom dama ci am chance damaa daje presque lu mat plus de huit promoteurs européens yoo xam ne nii dëkk yi ma mës a bëgg a dugg yëpp dañu signé ak contrat ak Lines of Africa xëy na temps bi du ñu ko may pour ma mën montrer mais daal vraiment am na lu nekk suñu kanam loo xam ne nii it faut état Sénégal xam. ñun demuñu pour suñu bopp mais dañuy dem pour suñu drapeau. te xam nga aussi di dem pour sa drapeau sa waa dëkk xamuñu ko loolu tamit vraiment dafa am dafa metti quoi at yii yëpp maa ngi jël sama alal xam nga. sama xarit bi dafa am benn wax mu ma a wax kii ñoo mooy Yves suñu kër yi ñoo jàkkaarloo ñun ñeent lañu woon. xam nga mën ngeen nekk ci koñ nekk fa presque loolu sax sama doon tur parce que dañoo bari woon mais booy seet kenn moo ci des man maa xam lan moo tax ma jooy quoi. daf ma dama jóge vaca dama gëjoon Sénégal 13 ans bi ma ñëwee ñëw mu fekk ma sama kër ñu waxtaan ma génn ne ko mais xamatuma sax fan la dëkk parce que damaa ñëw gis mu taxawal gratte-ciel quoi ma ne ma ne ko Yves fan la seen kër léegi ma ne ma fii la ma ne ko ah bon ma ne ko booy félicitation ma ne ma yow ñun ñii lépp lu ñu am mënoon nga am lu ëpp loolu mais da ngaa topp sa mbëggeel sa xol ba la li nga am yëpp da nga ko jox Sénégalais yi mais boo defoon ni man kon tabax nga lu ëpp lii mu ne ma ñaata kër nit tabax kër. mais yow toujours xalaatoo sa bopp moo tax tabaxoo kër ba léegi wax boobu la ma wax bon mu nekk loo xam ne àddina ku nekk sa mission. man sama problème du ay kër xam nga même oto bi mujjee am sax budul woon kii duma ko man ñëw naa Sénégal def fi presque un an taxi laay jël wala clando donc problème boobu du sama problème. beneen bi ci topp mooy euh, maa ngi ñaan état Sénégal ñaan naa ko ba bëgg a dee comprendre nga ñun soxlawuñ sax si ñoom xaalis mais fii booy seet. léegi dafa mel ni jeunesse bi stress bi ak coono bi ñuy dund mi ngi leen di génne ci lu ñu nekkoon di dugg ci art bi monde art bi dafay gën di développé ni dafa mel ni nit ñaa ngi bàbbee di ci gën a dugg espoir boobu il faut ñu ibbi ko parce que gis ne bu ñu ko ibbiwul nit ñu ngi naan muus boo ko tëjee ci néeg bu yàggee rek day day day def leneen comprendre nga nit bu amul bunt jeunesse bëgg nañu aar moom la ñu gëm déjà mi ngi leen di mi ngi dindi seen stress am nañ ci espoir mais nañ leen ibbil opportunité yi su ko defee ñoom mën nañ ci parce que seen ay borom ngi dem Europe di ñoom ñu ngi gis loolu te loolu aar dafay éduquer nit aar daf lay tax lépp lu négatif doo ci dugg chance la boo xam ne nag état Sénégal war nañ ci dugal xaalis war nañ ci dugal opportunité sinon jeunesse bi dañuy mujj di gis nga moo waral ay jël ay gaal di dugg ci yoo xam ne du seen ay domaine comprendre nga moo tax te aussi tamit ñàkk baaxul pauvre baaxul parce que man dama damaa jaar moro bi may ñëw fekk am benn conférence boo xam ne tamit européen promoteur yëpp la ñuy tase chaque année foofu sax la ñu xaw a yàggee ma fekk fa ay sénégalais yoo xam ne nii da nga leen fekk ñu taxaw di jaay am na si ñoo xam ne ma leen woo carrément xam naa ne fi ñu taxaw ni bu ñu dëgërul dinañ leen këf. bugguma egg ci yenn détails yi quoi mais daal maa ngi ñaan jeunesse yi nekk ñu gëm aar bi di ko def bu leen dara découragé loo man sénégalais la cent pour cent li sax c'est la première fois ma def ko nationalité européen laa yor. te gouvernement hollandais ñoo ma jox nationalité européen musuma ko bëgg bàyyi sama nationalité mais àddina bi boo amee yenn yenn nationalité yi des fois da ngay dajeek ay discrimination ci yenn ci yenn dëkk yi te man du ma nangu du ma dafa man damay xeex pour sama dëkk du culture kese man su ma nit defee dara ci aéroport du ma xeex pour man mais damay xeex pour beneen nit ku ñuul bi di ñëw comprendre ma la expliquer mm. parce que mës naa am problème bu mel noonu ci war a jóge fi dem Bosnia benn dëkk ma ñëw ci aéroport sécurité bi ñu ne ma da tekki sama ceinture man na ko ok man ne ko mais yow man ñi am na ñu jaar te tekkiwuñ ceinture mu ne ma non da tekki ceinture man ne ko ok danaa tekki wante su ma tekkee appartement ñii ñëpp ay tekki ma tekki sama ceinture taxaw ne di seeral sama ceinture mais ñi dugg amu am ñu mu bëgg bàyyi ñu jàpp ma ne ko noonu non fa laa taxaw ku dugg collègue mi ne ko yow kii wax na la dëgg ñii dugg ñëpp dañu war a tekki ceinture def ma ko woon pour pour man mais dama ko doon def pour bu beneen nit ku ñu nuyee mu bañ ko traité noonu. man sama xeex ci loolu la du ma du ma nit bu violent mais damay damay xeexu sama drapeau dama mës a am benn cas Hollande dafa am benn waa ji mu mës a tasel mu yor vélo ma yor vélo ñu mbëkkante mu jóg ne ma looy xam nga ma ne ko baal baal na quoi mu ne ma demal sa dëkk lan ngay def fii ma xam ne man mën naa mën xam nga bu ma nekkoon nit ko agressif mën naa mën naa xeex quoi ma ma bës sama xol quoi xalaat ne bon malgré yor naa nationalité hollandais européen mais dañ ma ko jox mais du ma waa fii mais droit bi mu am laa am mais sama xeex yëpp man maa ngi koy xeex ci culture bi. imagine nit koo xam ne da nga nga romb ci dëkk mu lay xool bëtu yow bokkuloo fii nga indi sa culture dëkk moom lépp lu mu la teeloon mu teg ko na le mélange bi am entre nit ku ñuul ak nit ku weex culture bi moo ko def. nit Youssou Ndour bu ñëwee Sénégal bu ñëwee Europe Baaba Maal artistes yi seet population bi koy seetaan du pour Youssou Ndour de. les artistes sénégalais yi nekk biir Europe ñoom ñoo liggéey loolu culture bi lu mu def ci mélange entre nit ku ñuul nit ku weex sénégalais yi gouvernement waroon nañ ko xam moo tax jeunesse bi nañ leen bàyyi ñu génn dem liggéey ji parce que fii defuñu fi dara lan fi def mais nit moo ko tëj ci kër amul liggéey amul dara nga ne do non attends nañ bàyyi jeunesse bi ñu génn dem liggéey sénégalais boo gis bu demee bu teddee fii lay njëkk a ñëw développement Almadies ak Sénégal lan la état bi les sénégalais yi ñu dem ñëw ñëw tabax kon donc bunt bi ñu tëj artistes yi foog ñu bàyyi ñu gën a liggéey sénégalais du toog fenn ci àddina bi fu mu mënti am day dellu si waat man maa ngi ne yor nationalité européen mais sama dëkk fii laa am quoi jàmm ji ma am fële amuma ko fii fee ba ma fa fekkee da nga naan kii lan lay wut fii manqué wu ma dara ci sama àddina mais sama dëkk dafa am benn parti boo xam ne dafa sooxee dama ko bëgg xeex pour mu développer ok nee na ngeen baal ma ngeen baal ma nee naa xool caméra bi tellement dama excité wu quoi. ba pare aussi culture bi dafa defar lu bari ci image nit ku ñuul. Ah, dafa am ñoo xam ne mu mësuñoo bëgg mélanger ak nit ku ñuul mais culture bi dafa dafa dafa dindi lu bari ci entre nit ku weex nit ku ñuul. boo gisee tubaab yi di sëy ak étranger di mélanger wu ak ñoom ci culture la presque la la gën a def développé te loolu aussi lu ñu war a jàll parce que tubaab yi gis chaque instant ngi gën a tëj seen ay bunt. mais culture bi moo tax mënuñu teg buntu européen yi parce que ñi ngi def ci seen xol yi loo xam ne nii du du ma bàyyi bi fenn parce que moom mi ngi évoluer ci art bi donc culture bi daal booy seet mooy bunt boo xam ne moo desee euh, étrangers yi africains yi seen chance en Europe mm-hmm. waaw donc booy seet ci côté boobu daal parti bi gën a mag boo tax européens ba léegi ñu ngi dugg si fii di sëy ak doomu Sénégal yi di leen ñuy ànd ak ñoom di génn ci culture dul jógee donc ñun jaar nañ ci dëkk yu bari yoo xam ne nii euh, def na ay une minute de silence parce que bi euh, problème mu mbëkk mi gënee gënee gënee fort ñu def ñu fekk Espagne ñu tourné bi ñu tourné am benn moment boo xam ne dama def une minute de silence pour africains yi daan yu gaan ci daanu ci géej gi quoi fekk état espagnol bi ñoom ñëpp ñu ngi fa parce que ñun festival yu yëpp par état affaire état la quoi mais man damay dem toujours di si participer mais sama état duñu foog européens yi ma fekk xamuñu ne sax man sama état yónni mais damay ñëw taxaw comme état sénégalais moom yónnee drapeau Sénégal laa yoroon. Hmm. bi ma defee une minute de silence ñoom daf leen jaaxaloon parce que ñoom nee nañu foog nañ ku dugg Espagne rek ci géej bi nga jaar mais ñu ñu jaar voie légale te xam nañu duggee wuñu Espagne Norvège lañu duggee dugg Suède ñëw ba ci ñoom donc loolu am na tamit image bu bu bari bu mu bu mu changé ci période boobu. donc moo tax ma ne daal maa ngi ñaan les artistes sénégalais bu ñu découragé gis na ma sa ñoom parce que man. buuru Norvège sax buy def dara man foo ma teew fi may dugg fépp boo gisee ma dajeek sama jabar culture moo ñu boole man ak moom. donc maa ngi ñaan képp kuy artiste bul dugg ci affaire de drogue bul dugg ci beneen yoon boo xam ne nii bul yàkkamti mu yéex mu gaaw dina ñëw lu mu métti métti dina ñëw. donc loolu laa jox conseil artiste sénégal yi ak ñiy def aar yëpp ci yéen journalistes yi xam naa ne seen gëdd des ba tey jot la ah, ah, seen gëdd ba tey jot jot am leen ko dangeen koy ñafe gëm ngeen ko mais seen àq jox ñu leen ko mais yéen tamit ñu ak gen ñoo bokk même branche li ngeen di def nii bu mokkee seen fay bi fii du leen yàlla dim dimbale ba ngeen génn Sénégal gi di ngeen gis ne yéen li ngeen doon def ndikee am affaire bu affaire bu am doole la métier bi ngeen yor nii du la du ngeen laal suuf euh, en Europe mais fii Sénégal parce que métier yëpp la ñu noyé quoi donc li mel na mel ni rek da ngeen nekk di nekk ci stage ngeen nekk nii mais mu yéex mu gaaw di ngeen mu si gis résultat bi jërë ngeen jëf